waaw asalaamaaleykum euh, toute la diaspora sénégalaise da ngeen def ñu ngi leen nuyee ñëpp ku ci nekk seen tur seen sant man la Mohamed Diakhaté seen président ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox seen wàccuwaay waaw ñu ngi kontaan bu baax ci euh, suñu participants yëpp ñi xam te ñu ngi fekk ci euh, telegram bi foofu la ñuy nekk presque toute la semaine di ci waxtaan ci ay thèmes yi nga xam te moom laa proposé askan bi yëpp donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax vraiment ñu ngi ci kontaan bu baax a baax waaw te di ñaan yàlla. yàlla jàppale ñu bu baax a baax incha allah ci euh, liggéey bu rafet bi nga xam ñu ngi koy def pali ci belga askan yëpp ndax ñu bëri ñu ngi ci gis seen bopp man dama naan rek lii yëpp bu ñu ko defee rek dëgg rek moo ko mën waaw lépp looy def loo xam ni dafa dëggu ci yow rek mu nekk loo xam ne dëgg la rek yaakaar naa ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp donc ñu ngi leen ci remercier dinañ ci gërëm di wax rek ba léegi ñii nga xam te ñu ngi ñu bëgg a si suñu telegram mun nañ télécharger telegram euh, lien baa ngi noonu sur page Modou Modou Fatou Fatou donc mën ngeen fa dugg Euh, fekk si ñu rejoindre si waxtaan yi voilà donc euh, foofu la ñuy nekk boo la ñu gis defuñu vidéo ñoo ngi foofu ci waxtaan avec euh, toute la diaspora sénégalaise donc bu weesoo loolu ñu ngi ñu ngi liggéey ci ay projets yu bari yoo xamante ni ñu koy bëgg askan bi donc maa ngi fii kër ga nekk sama studio ci liggéey lu bëri bari bëri waaw donc incha allah dinañ am nañ yeneen exclusivité yoo xamante ni ñu ngi leen koy dencal loolu yëpp pour euh, bégal leen waaw dañ daan gis euh, bu njëkk euh, bu njëkk ñi nit ñi vraiment daaw ñu toog di waxtaan ak immigré ba tax na lu bëri xamuñu ko di gis ci ay immigré yu bari am def nañu ay erreur yu bëri loolu rek ñàkk xam la mais jamono bi ñu dund nii wax dëgg yàlla macha allah ak live yi wax dëgg yàlla mën nañ ci yee ay doomu aadama yu bari bari bari bari bari ci lii te loolu vraiment sant yàlla donc na utiliser réseaux sociaux yi ak YouTube yeeg yooyu yëpp ci anam bu rafet boo xamante ni euh, askan bi dañ ci mën a gis seen bopp mën cee jëriñu waxuma la sax askan bi kese mais même ci génération yi sax saa ñu ko dégloo dinañ ci mën a gis seen bopp te dina fi nekk tout le temps ci internet bi. donc tey ma bëggoon leen andi lek benn waxtaan bu am solo boo xamante ne sama participant ñu ma ko laaj ci euh, bëgg xam lan mooy anam yan mooy anam yi nga xamante ni moom la ñu mën tabaxee kër ndax gis nañu kër mooy lépp ci àdduna man de sama philosophie moom moom laay wax ku ne waaw nee naa man daal sama philosophie dafa simple tekki égal kër ku nekk ak ni ngay gis nag tekki mais man sama bopp sama wàll bopp ak sama xam-xam bu daw bu gàtt dama naan moom ko am kër rek daanaka am nga lépp waaw donc dem di wuti dépense ak yooyu day doon loo xam te lu yomb la mais kër moom mooy loo xamante ni moom kenn mënu koo euh, mënoo ko ñàkk ndax boo ko ñàkkee ñàkk lu bu rëy ndax gis nañ fi ni ko am ay millions wala ay milliards te tabaxul kër wala ni ko xam te ni yàlla mayoon na ko mu am alal bu bëri noo toog sàggane ba jëm mag gis nañ ni amu ci benn jëriñ waaw defu tabaxu ci kër defu ci loo loo xam te ne am na maanaa ndax da koy téye li ñu wax rek xaalis da koy joxoñ boo ko waaw kenn du ko téye boo ko da nga koy jaay ba tax na ñun tout le temps ñu ngi euh, sensibiliser toute la diaspora sénégalaise à ce que ñu yeewu plus parti euh, euh, plus particulièrement moodu moodu yi ñu ngi bitim réew ak faatu faatu mais du ñun kese même émigré yi nga ñu ngi Afrique tamit ñom ñëpp ci lañ bokk parce dañu émigré ak aussi même ñu nekk Sénégal tay ni da damay naan euh, maa ngi wax ak toute la toute la diaspora africaine voilà ñu euh euh jéem euh, jëriñoo euh, suñu toute expérience yi nga xam te nañ ko am donc tay thème bi leen daan mooy nan la euh réaliser ba tabax kër donc ñu bëri bu ñu xolé dañ naan kër pour nga tabax ko dafa metti parce que ñëpp xam nañ ça prend des millions et des millions mais le plus gis technique là, parce que le lu nit bëgg li américain di wax rek ne what the mind think can be conceived moy lepp lo xamanteni xel mu koy xalat mën nga ko consommer donc dama naan rek organisation les foog ñu xol ñun comment la lañu def ba organiser wu ba nga xamante euh, ñu mëna am suñu kër bobu le euh, au Sénégal té nit ki bul investir feneen fu dul sa dëkk waaw donc tay bari na par exemple ñun Amérique bi nga xamanteni ñu ngi tay bo xolé euh ñu bëri ñu ngi liggéey donc man dama nan rek lépp xaj na ci waaw lépp lépp lépp xaj ci da ngay dem di liggéey boo ñëwee nga fay sa appartement ñepp xam nañ appartement bitim réew dafa cher euh, nga fay sa facture courant sa fay sa ndox euh, bu fekkee Sénégal yaa ngi fay yónnee dépense nga yónnee bu fekkee am nga sa jabar say doom loolu lepp mais da nga koy calculer xol li nga xamante ni boko ko say wa ke Sénégal do son dama naan nag priorité waaw lo xam priorité la moy lek nan ak buñu ñu feebaree leneen loo ci teg bo len ko dimbalé tamit ya tooñ yaa yaa tooñ sa bop parce que loolu da dul priorité

cinq cent mille boo amee am terrain six cent mille sept cent mille un million yaa xam li nga xam ne fa dooleem nga jënd ko en tout cas jënd loolu mooy première étape soo ko xasee ba jënd léegi nga fexe ba dajalaat sa xaalis ba amaat benn cinq cent mille wala six cent mille nga clôturer ko soo ko clôturer ba pare ba teg ci sa buntu zinc wala buntu euh, euh, parigo di nga gis ni nag léegi da toog xool ñu vidéo la ko di xool xam ni lii nii léegi nekk te am nga kër loolu daf lay gën a motiver defee nag léegi nga commencé nag léegi di dajalawaat sa xaalis par exemple fini nii dañuy def ñun chaque année bu ñu liggéey dañuy dem file suñu taxe voilà mooy taxe sur la valeur ajoutée ñun lépp lu ñuy jënd da ngay da ngay da ngay fay taxe mais à la fin de l' année daal di yëkkati xaalis boobu fay la xool li nga xam te ne état moom la amee mu delloo mu dool dool dool delloo la ko te loolu ñi fi nekk Amérique xam nañ ko dina defal na la jël ay 2 euh, millions wala 2 millions 500 wala 3 millions ça dépend parce que doom bu nekk dañ koy fay 1000 dollars donc dépendant la donc loolu boo ko amee loolu yow mooy sa break mooy mooy sa sa wërsëg ko jël di ko taal parce que fii da nga gis Sénégal yu bëri loolu xaalis yooyu la ñuy jël di dem Sénégal di ko vacances wala di change jënd oto wala yooyu yëpp yoo xamante ne amul benn njëriñ xaalis boobu ngay jël plus la nga doj dajalee durant toute l'année bul xeeb loo mënti am nga jël ko nga denc ko léegi boo boolee loolu moom ngay jël nga yónnee ko Sénégal am na ay am yu baax yoo xam ne ñu ngi fa ba léegi soo defee ñoom ñu commencé di la tabaxal donc une fois que nga nga commencé après nga ñëw nga xool nga amaat xaalis nga ñëw nga clôturer léegi nag boo amaatee beneen yoon tamit beneen année chaque année noonu ngay def nga dajale sa xaalis ñëw nga commencé def fondation beneen année bu ñëwaatee nga dajale sa xaalis loo am boo ñëwee après nga commencé def élévation yooyu boo ko gisee ngay daal di sawar su mais sacrifice tamit aussi il faut tamit nga téye sa nafs bàyyi ay solo da nga fii doon kaw-kaw boo fi kaw-kaw moom doon fi ab Sénégal di nga fa doon

xam nga bu fekkee mën ngaa bokk ci ay tontine nga bokk ci ay tontine ba tey jub lu baax léegi bu bus boo tegee nga jël xaalis boobu daal dem yóbbu yenn crédit card ci gars yi jël di ko jënd ay sanse yow ci yu ñàkk fayda mais nga ko jël nga utiliser ko fu baax mooy nga jël xaalis boobu nga yóbbu ko au Sénégal nga tabaxal ko sa kër donc ñun noonu la ñuy def ba tey am nañu man gis naa ñoo xam ne ci ay fast food fexe nañu ba tabax kër asumala yéen mi di liggéey ay vigile ñi di liggéey ci ay restaurant ñi di liggéey ci ay ay bureau donc il faut tamit ngen ngeen ngeen rétrécir seen euh, c'est euh, une dépense parce que ñep xam nañu bitim réew dafa metti voilà déjà da am dépense parce que loi di ko fay di nga fay ndox di nga fay courant di nga fay sa mbalit di nga jënd sa nous di nga fay sa téléphone donc lool moy lo xamanteni di par force bu neex la donc les, dolé sa ay facture demay dugg ci ay auto, demay dugg ci ay ci ay kër yoy di solo sa def au Sénégal té ñu li actuellement ni ñëpp xam nañu actuellement nii ci euh, euh, corona bi euh, dootul nekkati comme avant de waaw loolu na ko ñëpp xam donc yëppoon nañ ci profito man lii yàgg naa yuuxu ci internet bi ma na leen nañu réaliser waaw ñu réaliser di dem bitim réew yàgg bitim réew nga ñëw ñibbi Sénégal amoo dara kooku vraiment nga dem ba nekk mag loolu ab gàcce la man damay xool sax Europe ñu ci bëri loolu la ñuy def sincère foo leen fekk ñu ngi ci internet yi di xool di jëm xool lan la ñuy jënd ay yére ay dàll lu ne waaye yooyu ko yor mais kër mooy loo xamante plus mi gëna yag yàgg gëna am valeur té do ci dépenser dara te do ko dundal yére loo ko jënd plus nga koy sol mu nga koy gëna a perte la même chose plus mi gëna yag yo valeur bi di gëna daj di gëna dem donc lañu djublu ci lo xamanteni euh non seulement dinañu euh, ñu dinañ ci mucc mais même suñu doom ak suñu setaat set di ñëw dinañ ci mën barké barkeelu waaw donc man li ma leen di yedd ni man sam bopp dama ci dama ko def bëgg aussi ñëpp diko def donc Euh, euh, tabax kër yomb na yomb yomb na bu fekkee par exemple yow xam nga li nga bëgg nga xam ne lii mooy finalité bi waaw parce que tukkikat boo gis ah lii lañ ñuy yaakaar ci moom mu ñëw réaliser au Sénégal tabax këram ñëpp xool ko naw ko mu ñëw mën a tukki nga xam ne tey boo màggatee nga retraité wala nga dem ba xamante ni gis nga ni fii bitim réew mënatuma fi toog

mënu bu demoon sa kër wala dem sa projet kon heure bi sori nga ñaata ni ñoo xam ne tey def nañ fii vingt ans wala trent ans tey bu ñu xalaatee liñ daan jël seen xaalis yëpp di ko jàppale seen waa wala di ci noos heure bi mënoon nañ feg ñu am ci ñetti wala ñeenti kër am même ay am ay projet donc il n'est pas trop tard ba léegi parce que tey immigré boo xoolee tey nii man li may yërëm mooy booy i di ñëw dina gën a metti ndax bu njëkk gars yi daaw ñu toog di wax nit ñi dëkk voilà affaire foog ngay wax nit ñi toog di waxtaan ak ñoom li naan qui ki la jiitu ci néeg moo la mën wax fi ngay toog du ñun mi nga xamne ne ñu yag nañ fi def nañ fi des années donc tey ñun ak suñu expérience lo lo lañ war a jël di partager avec les gens surtout avec les jeunes am na sa mag ne xamuñu ko bu ñu dégg ay vidéo yu melni dañ ci yew xamne ne nekkati kat affaire bi lii ak li la donc loolu bu leen ko xeeb Sénégal mom duñu faire jamais tant que yaa ngi di jox dañuy encaisser ken bañu dimbalé sa yaay ken bañu dimbalé sa pap ken bañu dimbale sa mbokk way way way tamit

ah moo xew mu fi gis ko fii solo ba réussir amul wala ñu koy tagg wala lan nga ci am ay lu du lu lu liñ naan olof jaay li mu naan rek ñu naan mu naan euh, daam ñu koy faral di ko waxee ñu euh, luy xew yi boo ci dem dem ci nàkk te wax nañ dëgg loo fi mas jën ci ay yére te anamu jarul dara da ngay xool sa sa sa armoire da nga koy fees sa wu fees dell wala ñaar nga ciy sol moo tax li gën a am valeur mooy kër kër ku ko am même boo doon lekk soobi wala sa amuloo lek kenn du la xamal ku la gis da lay respecté ku la gis da lay naw tubaab bi seen bopp sax ñun am na ci africain ba dañ ñoo teg ay dof parce que dañ naan gis nga leen dañuy ñëw lu seen xaalis bu ñu am rek bu kenn bi jotee ñu ñëw di commencé di jënd da ngeen di muus tamit waaw ah, gis nga kaw kaw li ñu yàggee gis nga baalu baalu ñu daan wax noonu ñoo ñoo yàgg tekki biir Sénégal ak di bu bitim réew da nga leen gis ñu sor seen bloc ak yooyu mais dañoo xam lu ñu bëgg ñoom li ñu am bu ñuy ñëw Sénégal lañ koy wone mais ñun nga xam te ne ñoo ñoo naan ñu dañoo yeewu on est on est branché on est lan nga ci gis dajale ay diplôme ay kayit xam ne benn njëriñ waaw nga nga liggéey ba retraité yoroo dara doo mu o mënoo ñibbi Sénégal parce que mënoo too ñëw dugg sa biir kër gars yi dañ lay xat dan lay xat dañ lay dàq waaw dootu nangu sénégalais moom boo xasee ba génn seen kër moo yow pare nga fexe ba am sa yëfu donc lan la ñu obligé toog ci euh, bitim réew ba keroog ñu dee loolu loolu loolu dara gën ko métti donc ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp xool suñu taxawaay xool lu ñu bëgg te xam ne àdduna lépp loo bëgg rek dañ ciy def sacrifice man de samay conseils mam ak lima xam loolu lay bok loolu lay bok ak toute la génération waaw toute la diaspora sax lay wax ah, africaine bok partout donc nañu nañu nañu yew wa nekkatuñu ci ay jamono yo xam te ñi ñang ngi yàq wala ñi ñang ngi jox xaalis pour ñu lay tag wala ngay ñew di inviter ay chanteur wala di ñew di héberger ay nit ah ngay tal xaalis bu dul jeex way daan nañ ko def tay ñu tok après dem ba nek màgget gis ni keur sax yoruñu ko une maison c'est une nécessité nit munul muusa ko waane ba du am kër munul nekk il faut nga am ko loolu mooy c'est c'est le minimum li nga mën a am nga protéger say doom surtout surtout maam boo amee doom yu jigéen nit bu demee ba euh, su demee ba màgg ba nit ba koo takk ñëw fekk am na kër da ko respecté mais imagine toi nit ñëw takk sa doom fekk yow mi di baayam ak ndeyam amu leen kër yow leen dara kan moo lay respecté ah li nga liggéey yëpp tout toute ta vie ban njëriñ la ban sens la mu fekkee amoo kër donc tekki égal kër kër boo ko amee mooy lépp donc ñun nañ ci góorgóorlu même ñu nekk Sénégal sax di liggéey ak lu mu tuuti tuuti tuuti ak lu mu bari bari bari war ngaa mën a def sacrifice parce que tey boo toppee say mbokk wala topp say say say sey say parents doo ko mës a waaw parce que foo leen fekk ñu ngi lay jooy ay doléance donc ñun nañu demee priorité tubaab noonu lay demee lekk naan boo feebaree ñu mën la faj loolu mooy priorité leen lu la waay teg du priorité mën nga mën ngaa bañ il faut tamit ñuy jàng wax déedéet wala bañ wala bu fekkee sax mënoo ko sax nga wutal beneen lay wala nga wala sax ne awma su ko defee nga mën a continuer say say say euh, say projet ba keroog nga koy am waaw ñu bëri noonu la ñu amee kër tey ni par exemple ñi nga xam ne xamuñu Sénégal am na fa ñu juba ah, ñu juba nga fa ba léegi am na fa ñu bëri ñoo xam dañoo jub coach man sama ma rek ku bëgg man tey boo mu contacter mun naa la ko jox muy tudd Pape mais waa ju jub yónnee naa ko kopar yu bëri te samay chantier ba léegi moo ko yor musuma lekk sama dërëm donc ñu baax ñaa ngi ba léegi bu fekkee nag wóolu leen aussi ñu baax mais jëlee leen seen xaalis ngeen ko ci banque loolu du yàqu jamais musoo gis xaalis xaalis bu yàqu bàyyi ko ci banque bi bis boo ñibbee Sénégal nga génn sa xaalis wut yow sax maçon bu la doy nga ñëw nga yóbbu ko mu tabaxal la commencé nga koy surveiller donc yooyu yëpp am na donc ñaar choix yu am na mais tey nag boo naxasaay ba jël sa xaalis di ko jox say say mbokk wala say sa papa wala sa yaay mais gis nañ ko fi ñu bëri ñu ko fi dem ba pare ñu jaar seen kaw donc yéen tamit da ngeen war a yeewu léegi mën ngaa dem banque BHS euh, boo nekkee bitim réew da nga koy am wala yaay xool banque bi nga xamante ni bu sa dëkk boo xamante ni soriwul nga nga nga nga dem wut say papier nga fournir say papier yëpp garanti sa banque loo am nga denc ko donc loolu la ñu baax ñaa ngi foofu ba léegi am na ñoo xamante ni aussi comme ay BHS noonu dañ lay proposer ay kër mais man dama naan kër yooyu euh, kër yi baax na

parce que doo xam ne yow yan matériel lañ ci def mën nañ ci def ay matériel yu yomb jaay la ko lu cher tandis que yow bu fekkee da nga ko tabaxal sa bopp mooy gën a mooy gën a gën a dëgër ba pare mooy gën a moins cher donc yooyu yëpp aussi da ciy am xam nga donc wala tamit ga am sa xaalis yow xamoo nga ñëw rek jox sa wut benn maçon nga ne ko tabaxal ko non yow yaa koy wax yow sa xaalis la foofu nga nar a dëkk foofu nga nar a retraité donc dafa war a nekk loo xam ne say moom nga bëgg yow donc yow yaa koy wax li nga bëgg soo xamulee nga laajte wala même nga dugg ci internet bi man am na ci ay buntu wala ay palanté wala yenn idées damay tàppe ci internet bi ma dugg ma xool di nga ko mën a gis su ko defee nga woo sama soo nga wax ko donc y' a plein de choses yoo xam ne tamit aussi ñun tey am nañ ci accès si internet bi ni dugg ci internet bi ñu gëstu ci xam nga mais kër moom mooy loo xamante ni ah nit ku nekk war nga ko am ñu ko def woon yëpp bu ñu demee ba màgget dañuy toog di ko rëccu waa dañu toog di ko rëccu man rek ma xool ko sama baay ndeysaan yàlla ko yàlla xare àjjana fi mu ne ñeenti jabar la yor ñun mën nañu presque on est nombreux mais ba muy gaañu de sax dafa baaxoon danaa jël xaalisam di ko séddale fule bi ma ay mbokkam mu ne di héberger eh ñu koy tàgg xamul parce que làkkat la sax loxole la ba moom mu yaakaar ñi dañ ko bëgg mais ba muy waaj a gaañu dafa toog sama yaay di wax man li ma gën a rëcc sama àdduna mooy lu tax tabaxuma kër te ñun ñoom duñ la ko wax man jot naa fi ay nit ñoo xam ne woon nañ ma ne ma grand man ñëw naa Amérique depuis 1987 ba ma dégloo sa vidéo laa door a

li si des mooy nga teg sa benn projet bu la jox ndekki añ reer après day yomb même boo jëloon benn taxi sax yor ko yow nga sa amuloo fay ñaata nit ñaata sénégalais wala sénégalais nga gis ni dañoo ñibbi dañ ñaata dañuy ñibbi définitivement deux ans trois ans wala quatre ans après dañuy delluwaat bitim parce que amuñu kër munoo ñibbi si ba pare yow tabaxoo kër ba pare nga bëgg dem di louer ba pare teg fa business du dox munu nekk parce que Sénégal pays la boo xam ne bu pauvre la léegi appartement yi ça coûte tamit très cher en Europe soo bëggee benn appartement bu baax a baax dafay cher ay cent cinquante mille deux cent mille donc tey boo tabaxee sa kër yow déjà lu bari wàcc na donc yow li ngay lijjanti rek mooy dépense loolu day yomb moo ta ñun nañu yeewu man loolu rek laa wax Sénégal bu ne yàlla bu la wërsëg war ngaa mën a am kër c'est la trace de la personne sur terre te lépp technique la donc da ngeen di wàññi seen bëgg-bëgg ngen jàng simplicité ngeen bàyyi di dugg ci ay ngay ngeen bañ di dugg ci ay crédit carte ak ay leb Europe dalay nit ki dalay lay lebal benn cinq euros bëgg laa fay ko benn 8000 wala 9000 mille looloo tar leen ñu bëri wala ngay héberger ay nit wala ngay ñëw di di organiser ay ay barbecue wala ngay togg ay ceebu yi gars di ñëw sa kër di lekk yow yaa ngi taal ay centaine de mille yoo xamante ne tey soo ko calculer woon ay tonne ciment la tabaxoon ba kër donc technique yooyu la yooyu la gars di xeeb bul xeeb yàlla may na la ay millions mais yow yaay xool nan ngay taxawoo man loolu rek laay wax yaay xool nan ngay taxawee taxawala say say say say mbir waaw dox ci dox ci ful ak parce que tey ah ñu bëri diñ ko seetlu de gis nga tey nii dox dox safaan moo gën a cher téeméer yoon dox farata farata booy lan nga fay sa appartement fay sa téléphone fay sa dox fay sa courant yónni dépense Sénégal li si des nga denc ko mën ngaa lekk lu neex sa biir kër loolu doy na noos waaye toppal si leer yi nga xool solo yi nga xool ne mu cher toppal ci oto yi rafet yi nga koy jënd muy paan fi nga jënd ay essence mu lay utal ay programme ngay dem di dem ci ay xew di dem fu ne xoolal xoolal yëpp nit du ci bàyyi xel loolu lépp mooy alal bi nga xam te ne yàlla joxoon na ko pour nga tabax ci kër mais ñun di ci bàyyi xel topp ci maquillage defar ay wenn par exemple si jigéen ñi cosmétique ak lu ne vacances Sénégal la ngay may foofu ak la ngay yóbbaale sa samse yi nga dem xam nga yooyu yëpp réussir nga ci bu yàgg ñu bëri loolu moo leen tardé am na benn paa bu ma gisoon temps yële yaakaar naa ça fait deux ans de cela nga gis ko 37 hmm? ans bitim réew il n'a rien réalisé di ñaan yàlla pour gars yi dajale ko jox ko paas pour mu ñibbi mais c'est le comble loolu ñu dañu war toon di ko xalaataat donc am nañu opportunité boo xam te ni waxuma sax am na ñoom dañoo jàng ba am ay diplôme nekk au Sénégal bi di chômer ñu leen di jox ay liggéey yoo xam te ne ay stage la bu ñu paree keneen jëlaat ko noonu da leen passante gauche droite yow nga am chance nekk bitim réew même boo amulee kayit mais bitim réew gars yi dinañ la jël nga liggéey même bu dee dañ lay fay sous la table bul xeeb xaalis boobu mën nga ci réaliser au Sénégal mën nga ci am sa kër waaw jëlal sa xaalis nga denc ko soo amee ku wóor nga yónnee ko soo amee ku wóor nga denc parce que lépp te du moment que man dama naan di moment que jënd nga terrain rek di ko tabax parce que yàlla moo ci def barke gis nga kër ñi ko musul tabax nañ ma laaj man ak ñi nga xam ne def nañ ko une fois que nga jënd terrain dootoo taxawati buñ la fo buñ la vidéo terrain bi sax boo loo ko da ngay kontaan parce que yàlla moo ci def barke su ko defee nag léegi nga commencé dajale sa xaalis daal tabax def def def def fa kii bi mur bi ba pare warale kër gi loolu ngay njëkk a def tëj ko ñu la vidéo la ko yónni la ko boo ko xoolee loolu moo doon sa motivation sooy dem di liggéey nga yor sa téléphone portable nga tëj ko ma noonu laa daan def taal ko xool dama may gën a sawarloo damay dem liggéey di sa bopp su ma amee ay heure supplémentaire dama ko daan dóor lu ne bu ma ñëwee lépp lu ma am ma dajale ko au bout de cinq six mois sept mois ma jël lépp dajale ko acca immigré sa xaalis warul warul fanaan àll dafa war a jéggi nde ndox mooy li ma leen di wax dee leen mbaq léegi gis nga boo bo boo ko clôture ba pare ba nga am nga xam ne am nga mur yow boo xoolee xam nga ne am nga kër tey même bu yàlla defoon sa amoo dara ba amoo dara tey boo ñibboon Sénégal sa terrain boobu rek ak ni ko miiree noonu mais mu nga tabax benn néeg ak benn douche loolu du la dikkee sax quatre cent mille nga toog fa au moins kenn du la yeb donc après noonu ngay def nag léegi après fondement fondement may mooy moo ci toog léegi nga dajale sa xaalis au bout d'un an di nga am jigu fondement nga ñëw jox sa mu def fondation nga xaaraat beneen un an nga dajale dajale ba fin d'année boobu nga jëlaat sa xaalis boobu yëpp nga dajale ko nga yónni des fois nit des fois sax mu ñi nga xam ne dañuy dawal oto des fois ñu accidenté nit fay la nga xool xam ne oto bi soxlawoo ko defar mi ngi daw te fay na la xaalis taal nga jël xaalis bi ko yooyu yëpp ay technique la nga jël yónni ko soo defee léegi après élévation bi mooy ñëw une fois élévation bi bu pare nga a xaar beneen coup boo ko amaatee nga dajalewaat dajalewaat da ba mu mat bu fekkee bokk nga même ci ne nga jëloo yëpp dajale ko après nga daal ñëw après nga doo collage bi jeex na daanaka am nga kër léegi des nag léegi ay finition la ay buntu ay palanteer ay euh, grille yeeg yooyu mi ngi noonu donc c'est pas difficile de c'est des millions mais ay je def donc keur moy lepp man wax sama vidéo yu yi yedd gaay di wax voilà pour réaliser une maison tu as tout réalisé dans la vie wallahi sa la jamais tay même bu la di nga gis tu top sa ndax keur nga la ci jox la sax jox bu da nga ay diplôme mais diplôme am fii man gis naa ñoom ay PhD la ñu am ay docteur ay doctorat ban sens la bu fekkee ci euh, amoo amoo foo dëkk donc da nga gis ni tey nii boo yoree sa kër noonu cër bu la jox du la ko sax jox boo amee diplôme baal ki rasulilaay tey tamit nga nekk sa nga nekk un homme tu as ta maison mais kooku loolu sécurité la même boo nekkoon sa sa jabar sax xuloo bi lu mu métti métti dina toog xool dina ne ah xam nga lan la ma toog parce que kii sama jege au moins am na fu la yor na kër loolu loolu nit da ciy tiitaru loolu mooy lépp waaw donc ñun nañu pas bu baax loolu rek laay wax émigré yi noonu nañu yeewu nañu yeewu avant muy trop Sénégal bëri na terrain dem nga fa terrain tubaab yaa ngi ñëw di fa investir te dama l'avenir c'est en Afrique yi fa ñëw de te tukki yaa ngi nii mi ngi jeex tàkk ne retour waaw waaw donc nag nañ ko bu baax ñoo xam ne deful woon parce que bitim réew dootul comme avant jamais jamais jamais du ma ne sax bitim mais partout dans le monde waaw dootul nekk ci jamais comme avant donc ñun nañu yeewu man loolu rek laa wax nañu yeewu nañu yeewu nañu bañ a nelaw nañu nañu ñu attaché la ceinture nañu gën a redoubler d'effort nañu gën a sakkanal nañu jàng toog suñu kër nañu jàng wax déedéet loo mënul nel noo mënuma ko soo ko mënulee ba mënoo ko bu leen wuy téléphone bu lay woo di la ñaan ci ay ñàkk fayda yoo xam ne du priorité dencal sa xaalis que jëm a réaliser parce que tey boo réaliser wul tey boo raté sa yow yaa sa bopp da nga gis même tey ñaata nit la ñu xam ñoo xam ne suñu membre famille la ñoo xam dañoo dem te ba léegi nii non rien réalisé te tey boo leen waxee ñu la waa dafa metti mënuñu ko c'est parce que ñoom ñoo xoolul lu ñuy def ñoom ñoo xoolul fu ñu dugal seen xaalis mais tey boo tracé fu ngay xool fu ngay dugal sa xaalis di nga gis ne yow fan nga dem lan nga def loo xamante ni tey waroo ko woon def ñaata nit ñu ko def ba léegi nii donc du ci ay ñaata c'est pas la somme d'argent que tu gagnes qui compte mais c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais avec l'argent qui compte mooy fii ngay dugal sa xaalis loolu moo am solo

nga ñu topato ba am say kër yaa xam da ngaa takk jabar wala nga takk da nga benn jëkkër tuba moo la takk wala yooyu yëpp donc ñoom ñoo la xajal seen biir dëkk yow nga yow seen biir dëkk fekkoo leen sax ñoom ñu doxale noonu yow nga bëgg a ñëw rombale mais yow yaa dof yow la ñu xool di ree parce que ñoom seen dëkk lañ fekk ñoom même bu ñu daanoon am ñoom ñoo la gën a xam seen dëkk xam nañu te ba génn ci mais ñaata africain ñoo nekk bitim réew torox nañ carrément te loolu lépp ci ñoom la te dama naan il n'est jamais trop tard hein parce que tey nii mun ngaa mun ngaa bañ a xam ne la la romb yëpp romb na la waaye waaye lii ñëw ci kanam mën nga ko rawale ñaata ñu xam tey bo la ko xool ba légui nii chaque fois dañuy wut excuse non li mënu ma wa bo né mënu ma donc donc doo ko réaliser wa bo né mënu ma donc doo ko réaliser parce que c'est parce que li ngay dund la àdduna bi ngay dund vie bi ngay dund mo la neex bu ko bayyi waaw tam nga noos tam nga dem ci ay boîte de nuit yow ku nekkal ngay woy bëgg am ñoo xam tey bu ñu demul boîte de nuit pour ñoo bëggee wuñu am ñoo xam tey ni bu ñu solowul pour ñoo bëggee wuñu am ñoo xam ne bu ñu vacances wala Sénégal pour ñoo bëggee wuñu waaw am na ñoo xam ne nag dañoo tàmm toog seen kër ñoom bu ñu lekkee bu suur naa maan di jàkkaarloo seen télé ñu ngi bége waaw ku nekk li ngay woowee bége donc yow li ngay woowee bége na loo xamante ni sa njariñ la waaye ngay woowee bége loo xamante ni après da ngay pare nga ñëw dootoo deseti benn weccet sa poche ah ñu lay xool nga ne def naa vingt ans Europe vingt cinq ans Europe wala trente ans wala même boo nekkee Sénégal wala fu mu mën ci doon liggéey nga pendant des années tu peux rien réaliser te bu la nga chaque sa loxo ne la teg ko bi doo ko teg

mais seen xaalis si foofu lay naawee yére yi yii lan la tekki lii lan lii lan la tekki ak marque bu mu mënti doon ah, wala ay dàll ba lan la tekki doo ci jënd ay ñaar wala ñetteel bàyyi ko sa sa armoire su ko defee nga mën ci sa xaalis yi di ko denc tey boo ñëw ñibbi si yow sa kër boo ko yor Sénégal kooku waxuma la sax tey man boo soo jëloo sa këyit sax dem la banque ne ko dama soxla ay million pour man dinañ la jox dinañ lebal nga may jël xaalis boobu sax liggéey ci tey sa sa benn projet te loolu sax soxla woo ko soo yor sa kër daanaka tu as réussi donc man loolu laay wax ñee yeenaa ci ñu bëri ñu ngi may woo di ma sant di ma gënam mais man dama naan rek euh, euh, loolu c'est rien du xel la rek waaw am na ñoo xam ne nag du ñu xalaat wala am ñoo xam ne aussi euh, noos bele ëpp doole boo xam ne duñ ko mën a def duñ ko bëgg a def mais képp koo xamante ni yaa ngi ko sababul rek di nga ko di nga ko kër kër yi mooy andi kër donc nañ ci góorgóorlu loolu kese la tey ñun ñëpp ku ci nekk tey boo réussir nga ñëw tabax sa kër bi Sénégal te fa sa benn projet mais loolu mooy ndam loolu mooy ndam bi mais ñun loolu la ñu war a tiitoroo waaw képp kuy émigré loolu nga war a tiitaroo waaw ñu xam ne dem nga waaw mais ñib si nga ci ñib si woo bërëdu am na loo xam te ne andi nga ko waaw donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te tey li laa newal moom laa leen di andil incha allahu rabbi bon ñu ngi kontaan bu baax ci yéen euh, ñi nga xamante ni ñu ngi bëgg a bokk suñu groupe bi ba léegi ñu ngi ci presque ay cinq cent soixante personne ci telegram bi donc mën ngay ñëw si suñu euh, page Modou Modou Fatou Fatou lien baa ngi foofu ou bien ngay ñëw sama page beneen beneen page Facebook bi Mouhamed Bari Bagage Diakhaté voilà donc elle fait fekk suñu foofu bu ñu nekkule ci vidéo yi nii rek ñuy foofu di bëggal askan bi yëpp di waxtaan vraiment ay waxtaan yoo xam ne am solo donc ñu gis ni euh, bu ñu bu ñu xeeb parce que lii yëpp ay sensibilisation ñu ngi jëm sensibiliser les gens à ce que ñu xalaat sur la voie positive bañ a xool tamit aussi parce que aussi des fois yenn àndandoo yi aussi mooy tax nit du xam lu bëri waaw te boo ànda ni ñoo xam te ni euh, lu tuuti rek doy na leen wala ñoo xam te ni caaxaan rek la ñuy dox wala ci fort rek la ñuy dox yow da ngay ànd ak ñoom sax doo ci gan compte mais balaa nga ci encore fait tu as perdu des années te perdu des années bitim réew ñëpp xam nañ dafa yomb donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax incha allah ñu ngi am allons être yoo xam te ñu de a neex yoon ko proposer pour les jeunes pour wol na par exemple dans bëgg a wax ci les blacks américains ak ni ko jeunes ko au Sénégal yaakaar ni ñi ay roykaay la du ni ay roykaay du ñu ay roykaay li dund na ñom 20 vingt ans inshallah allah euh, dinaa ci def euh, vidéo inshallah gën ci yeesuñu askan donc fii laay yemale waxtaan bi incha allah ñu ngi ni di jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu di leen ñaanal yéen ñëpp gudd fan ak wér di leen ñaanal yàlla gën a ubbi seen xel waa gën leen a yokk yokk seen wërsëg yi ba ku ci nekk li ngay mëbét ak li nga xam te ne moom nga bëgg ak li nga bëgg réaliser yàlla defal ko ci barke Seydina Mohamed donc nañu xàccandoo ñu ñëpp dóorandoo loolu moo am solo on est tous des sénégalais fu waay mee nekk on ñu ñëpp benn lañu nañu xàccandoo dóorandoo ku ci nekk loo xam partagé ko ak sa morom réseaux sociaux nag lii lay amalee njëriñ moom la Youssou Ndour doon wax rek buñ taxaw di nekk di saaga wala di wax loo xam ne amul benn njëriñ nañ ci def loo xamante ne wax dëgg yàlla ku ko déglu rek di nga ci mën a gis sa bopp donc fi laa ko yemale incha allah benn yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullah seen président Mouhamed Diakhaté di euh, président Modou Modou Fatou Fatou